les conséquences Ousmane Sonko euh, le juge Keita a rendu son son son son son verdict et dañoo gis ay nit euh, di attaquer juge bi euh, am na ñuy sukkandiku ci ay posts Facebook sans pour autant pouvoir euh, la la la la la véracité yu naan le juge est un élément de Pastef là le procureur a interjeté appel. au courant du mois de mars on aura euh, au courant du mois d'avril on aura l'affaire sera peut-être euh, complètement euh, vidée sànq nga doon wax waxu respect des des institutions est-ce que les gens de votre camp yu émettre des doutes euh, sur la crédibilité de de d'un juge est-ce que ñoom tamit ñu di tomber dans les mêmes travers euh, li ngeen di accuser opposition bi. oui moi je pense que foofu yaakaar naa ni ñun ñëpp war nañoo delloo. suñu xel ku ci nekk xam la de ce de ce pays war a respecter les choses maa xam nga man du new juge bi c'est comme xam nga man c'est ma peut-être formation sportive moo may dénaturé man mosoo dégg may contester arbitre arbitre damay jàpp ni match bu amee su may doole laay demee li am dëgg ba dëgg mooy Mame Mbaye am na ndam ci mbir mi parce que Mame dafa wax ni li ñu wax ni rapport am na rapport amut du dëgg juge bi waxul ni du dëgg juge bi dafa ne dëgg la rapport amut dëgg la li usman Ousmane Sonko wax amut loolu reconnaître na ko condamné ko daf ko condamné condamnation nu mu mënta mel tey Ousmane Sonko moo war a ne dans une posture de justification parce que dañu koo condamné ce que ñaata at la 6 mois la 4 mois la man su ma yoon nekku ci man li ma yoon nekk mooy juge bi lu mu atte te man dama gëm suma justice ak juge lu mu mënta atte man dama ci conformé wu ñiy def loolu man ànduma ca. dama bëgg ñu respecter la justice en tout lieu et en tout moment c'est pas parce que la justice ne nous a pas été favorable qu'on trouve des poux sur la tête des gens c'est inacceptable